<laughs> gars yi sol euh, pantalon doog yeeg teg caay diril caay waaw na saf maqué yi na saf et xam nga euh, boo xoolee. ndeysaan les xoolal ñi ngi ñi jàpp ñëpp ni ils sont pro régime au lieu d'être dans le discours de la construction pour wax Macky lan la fi def ils étaient dans le discours de Ousmane Sonko ñëpp ñi ngay jàpp ne dañuy jàppale Ousmane Sonko. ils étaient dans le discours de la déconstruction lu ki def ñu yàq ko ñu xool la la doxut et cetera ñii ils sont dans leurs éléments parce que c'est des opposants li Macky yor nañ bëgg kon donc li Macky di def lu baax intéressé wu leen li muy def lu bon moo leen intéressé ñoom ils étaient dans les logiques de la déconstruction au lieu que gaaw Macky am fulal ñoom nekk dans les logiques de discours de construction topp Ousmane rek wax wax wax ba affaire yi dugal leen fii moo tax au nom de ce discours xam nga yow yaa ngi may wàllaj bilan mais attention tu, tu as lâché le mot tu as parlé de bilan mais le bilan est une notion comptable mon cher hmm. le bilan c'est une notion extrêmement comptable oui. et c'est quoi en définitive le bilan mais c'est les entrées et les sorties oui. donc Macky euh, ñaata la dugal ñaata la génne et si on s'en tient du point de vue comptable du point de vue financier de ce qu'est le bilan Macky a un bilan des plus reluisants mmh. kon donc euh, c'est un excès de langage que de parler de bilan immatériel le bilan ne faut pas être immatériel Matériel. même s'il y des immobilisations <laughs> immatérielles etc le bilan en soi ne faut pas être immatériel et donc léegi ñoom seen ñàkk jàppale jàppale Macky tax na ba ñu installer le débat du bilan immatériel immatériel moo tax Macky fa l'état de droit or su ñu yamoon ci le bilan la question de la bonne gouvernance te foofu laa lay wax de gis nga Macky <laughs> coow lay bari rek saa yi hmm. pënd bi wuree def na gars yi xam ne ki jàmbaar la loolu man maa man opposant la <laughs> man Macky moom nag bokk ñuy bagage mais je puis te rassurer hmm. euh, coow lee bari rek te impact ak dëgg hmm. euh, la daloon ci Ablaye Wade moo ñuy dal ci Macky waaw xam nga lu tax non pas suñu yëgoon sax mooy day nekk di def yi dara gars yi di ko dingat ci li muy def di ko sabote ñu dem ba jëmmi jamono ñu saa yi lii bu ko deful woon moom. mooy li naan péage. très bien Ablaye Wade. ñun Dakar li péage maa ngi fàttaliku 2004 amul lu mu déggul. paa bi day naax ak lu ne est-ce que yow tu imagines aujourd'hui la réalité de Dakar sans son autoroute à péage Macky sa ce sera les infrastructures te yooyu mooy yu visible yi. Hmm. ay TER ak BRT yi. nañ dem ba ci kanam ba mu dem. mais le plus important pour man Macky Sall dama koy wax c'est le nouvel ordre des priorités cest à la mise à niveau. Ouais. la en termes d'équité territoriale mais grand Dakar neex na loolu mais il fallait dem et cetera cest dire que rien que pour ça lu bonhomme a un bilan et que jamais au Sénégal les niveaux de salaire pour les fonctionnaires n'ont été jamais rehaussés et d'ailleurs euh, foofu laay wax nii en fait euh, ce n'est pas que les économies non cest dire que sur le la marche du développement c'est-à-dire que ce qu'on appelle le progrès et l'émergence ay étapes la état bi ci jiitu nag mooy croissance en fait mais le croissance ne signifie pas développement tu peux avoir croissance rester dans la pauvreté parce que le fort de la croissance c'est de créer aussi la pauvreté en économie kon nag problème bi du croissance croissance du ligne d'arrivée point de départ la maintenant soo amee croissance ba pare nan ngay defee quantité de la croissance en qualité de la croissance et loolu mooy moom la ñuy wax développement en réalité on ne devait pas parler de développement c'est les gens qui c'est pas l'État qui est en développement mais c'est les gens qui se développent et entre les gens comme disait Kizerbo les gens se développant individuellement dañuy bénéficier des fruits de la croissance yow sa revenu mel sa pouvoir d'achat jóg-jóg. foofu moom mën a redistribution très bien très bien léegi nag Sénégal loolu la ñu waxee ak Macky Sall c'est-à-dire que on n'a pas pu engager la next step dañu am retour de croissance mooy premier mandat 2014 2019 c'était le retour de la croissance en force on a eu de la croissance sur six ou sept années euh, consécutives à l'ordre de 6 pour cent musuñu ko am Sénégal musuñu ko am si ce la séquence 60 70 boobu jamono léegi nag deuxième mandat bi c'était le temps ñu jël loolu quantité boobu def ko de la qualité ci la Ousmane ko dugg. waaw Covid dugg est-ce que xam nga de 2019 jusqu'à léegi. Macky Sall n'a pas gouverné le Sénégal Macky Sall a été dans des réactions il n'a pas posé des actions son premier mandat il était dans le temps de l'action deuxième mandat il a été dans le temps de la réaction. moom parce que dafa am lu ñu yëfale Covid ñëw ay kii endogène. Euh, Ousmane Sonko ñëw kon donc moom il n'a fait que subir. Hmm. si bien que la mu jotoon am sax. ñàkk na ko. comprendre nga ñu delloowaat nag case de départ. Hmm. moo tax Ousmane. Hmm. je te le problème du Sénégal c'est un économique. ce n'est pas parce que je suis avec Serigne Boub ou je directeur de campagne que mais euh, à l'état actuel mm. à actuel on a besoin d'un profil comme Serigne boobu hmm. parce que problème économique nañu am c'est-à-dire fu fu amul dara hmm. nga am capacité def fa dara comprendre hmm. wala fu am dara nga am capacité ñongal ko ku mënul loolu mënoo ci kii. mënoo ci réew mi dara tey. parce que Macky Sall yóbbu na ko foo xam ni ah, bu dee affaire état de droit. ñun malgré ses insuffisances. on a un état debout. xam nga fi ko Ousmane Sonko dugg. Hmm. suñu état bu dëbbul woon. Hmm. tey jii lu na woon. soit ñu ngi ci guerre civile. wala ñu ngi ci coup d' kon donc ñun amatuñu institution c' di que euh, un am na ndam. Hmm. la fondation bi ñu defoon 60. léegi at the end. définitive li. c' est le Sénégal a un état debout. quel qu'en soit les chocs. on a un état. avec le deep state ñu ko mën a dékku quel qu'en soit les chocs surtout c'est des chocs endogènes. endogènes kon nag léegi suñu problème nekkatul institutionnel. nekkatul affaire démocratie. Macky day def yu ko neex rek waaye euh, moom bu démocrate peuple bi sera démocrate ci élection yi kon donc amatuñ problème mu affaire institutionnelle xam nga lan la ñu am. Mm. Mm. problème mu koom grand nit ñi mënal seen bopp dëkk bi neex. comprendre nga ñi feebar mën a faju à moindre coût. ñi lekk euh, ñi xiif mën a. di lekk. Hmm. Euh, liggéey xale yi am liggéey. Hmm. jàngi am jàng gars yi bëggee. bëggee tout loolu la ñu soxla. alors bu ñu avancé Aram xam naa ni euh, coom dina ma ko jox léegi il faut ma tàbb ci Ndella Madior parce que discours bi dinañ ci ñëw ah dinañ leen ko toppal incha allah sans limite euh, gën ci ñëw bilan bi aussi <laughs> dinañ ko def loolu moom bu leen ci am sikki sàkka dinañ ñëw ci bilan bu président Macky Sall dinañ ko dinañ am le temps incha allah décoté ko ànd ak comme ñoom Siré mais ànd ak ci nguur gi ah euh, te ñu jàpp ni am nañ ci gis-gis jox ma euh, information yu mujj jëm ci Ndella Madior euh, Diouf kër yërmandem bi Ndeye Arame Touré tey lii la ñu xëy si rek xam naa naa ci déglu du tee tamit fu ma dina ñëwaat ci le 30 bi ndax am nañ une idée. ci le 30 bi Ousmane Sonko du junj finalement lan la loolu dinaa ci bëgg a déglu ku mel ni Siré alors pouponnière bi lii moo ci mujj enquête bi ne li mu joxe. mooy gune yi nga xamante ni ñu ngi leen tuddee ay turan yi wax nii ay euh, Zolinka Ndella Madior Diouf Akon ay Anta Sarr Bijou Ngoné Youssou Ndour ainsi de suite euh, ne dañu ñàkk seen bakkan ci ay euh, conditions yu jéggi dayo ñu ne kenn ci ñoom sax ci tout tànk yooyu ñu ngi fekk te tudd Akon ñu ngi ko nëbboon ci ab Euh, maanaam euh, bassine ni ñu ko mën a waxee sax sio wala yu mel noonu en tout cas def ci glace ah euh, ñu ne bébé bi ñuy tuddee ma Niang reine de Saba ak ki nga xamante ne mooy Mbaye Gueye mbay Dieye Faye ba tey ñuy wax ak yéen gisuñu ko ah di ay révélation yu jéggi dayoo presse bi xëyee ba tey ci enquête yi nga xamante ne ma ngay wéy ci kër yërmande euh, ginnaaw ba mu feeñee ndaaram est-ce que finalement on arrive à comprendre ce qui s'est passé réellement bis bu jot leneen lu ciy feew parole. Euh, mais j'ai envie de le dire, nan lañ ko bàyyi si fii parce que c'est c'est de de s'émouvoir benn situation am waa lii ñaaw na lii rafetul lii lii lii laa mais derrière les gens n'essaient pas de de savoir lan moo xew te am nañ yaakaar ne euh, enquêteurs yi dinañ ko dinañ ko gën a leeral. Mm. mais Pape lii balaa muy man am na ay ay ay jamono yoo ni gis naa ko ni Binta Diallo. Mm. duñ dem xool xam tigi te boobu lii xewagul woon. c'est-à-dire xëy na moom lu tax ma tudd ko moom laa gis mi ngi doon wax ñu def loo xam ni mënoon na nekk un un un ci li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy dund. Hmm. mais euh, lii xew nii Pape. Hmm. après suba beneen ban mooy am. il faut aussi qu'on qu'on ak ñun Sénégal. waay yii nii nit ñi ñu ngi doon gis de temps en temps yenn vidéo yi génn bëgguñu woon xam. wala ils n'ont pas cherché à savoir ce derrière. naka la doon dundee naka la doon doxalee këram naka la mënee def ba yegg fii. ñi mm. loolu yëpp nit ñi jéemuñu koo xam. mais c'est c'est aussi très facile de de tout mettre sur le dos de de de Ndeer dafa am initiative am rek. man je suis pas là pour dire war wala warut oui. Euh, ndax am na compétence requise li ñu gisagum ci li ñu wax mooy amuloo. amu ko waaye euh, doxal na kër gi ci anam yoo xamante ne xale yi ñu nekkee ainsi de suite ak yeneen charge hmm. yoo xam ne ñu koy ñu koy. teg loolu mais balaa ñu yegg si fii ñan ñoo yóbbu seen doom fii bu ñu jugee ñu euh, wax sama mbokk jigéen ñi ñoo dem yóbbu seen waajur yu góor. nan la def ba yegg si si situation yooyu loolu itam daf ñuy dellusiwaat ci suñu kër yi nga am na loo xamante ne nii euh, buñ la ko yaree du ma ne doo def erreur mais dina foo tool di nga ne nii jomb naa ko def. Euh, boo jombee def dara situation bu la dara dabee ci biir famille nañu fexe nu ñuy nu ñuy nu euh, con con en fait dëgëralee laa ko consolider li nga xam ne mooy cellule familiale. bañ a xëy rek nekk ci ndawum dépense am xaalis euh, lekk def loo xamante ne peut ci besoin physiologique yi rek la la la yam hmm. nit dafa bokk ci société te bokk ci société tamit dafa am loo xamante ne moo la warloo ci nooy doxalee pour contribuer yow tamit indi ci sa wàll ci li nga xam ne moom nga war a doxalee. Hmm. dafa am ñu def. seen def-def moo créé Ndeela Madior. bu amul woon xale yooyu noonu ji fu ñuy jógee. ñu mën a am tey situation bu mel nii am na yeneen kër yu fi nekk. Hmm. am na yeneen situation yu xew. waaw yoo xamante ne nii à un moment ndee la xëy na bu amoon benn euh, fu mu bokk wala mu am benn tur bi amaana dañ koy waxtaanee di xool ni ñu koy lijjantee ci sutura ba dossier bi du agsi hmm. dañu war a génn ci banaliser yenn. yenn yu ndaw yi lakk nit ku décédé dañ defaat génne tegaat euh, dem cimetière waaye suuli ñu teg ko si jaar nga mën a taxaw filmé ko ak sa téléphone bu wane sans suur ni image boobu xale mën na ko gis keneen mën na ko gis keneen mën na ko gis wala sax ay mbokkam xëy na gisuñu woon image bi ñu tombé ci dafa am yoo xamante ne dañ ko war a bàyyi banaliser yu yu arab li nga wax yar maanaam da da da dañu desee dafa am yu dese réew mi. waaw xam nga man. waaw da tàggat bi dafa des. man yaruma bay dañu war a yar mais euh, ku ci nekk suñ ko commencé woon ci kër yi suñ ko commencé woon ci kër yi dina dina dina tane. Hmm. xam nga nit ki boo ko bàyyee nga gis ko am na lu muy doxalee même bu nekkee sa sœur wala mu nekk sa doom mu nekk sa kër am na tànk yoo xam ne gis nga muy doxalee. bu defee yenn yi wala feeñee fenn fi du bett. waaw yooyu nag foofu laay waxee ne yow mën ngaa aatu. mun ngaa teel wax mais doo bàyyi ba nit ki nekk magum jëmm di doxal dundam am mu gisee àddinaam nga bàyyi ba mu def erreur wala mu dugg ci benn situation nga ne ko génnal kër gi wala defal lii un problème fu mu mënta toll ci àddina damay ne yàlla da la nattu da ngay en fait deal with da war a fexe jëflante. waaye problème boobu foofu nga toll ci àddina. Hmm. yàlla régler problème bi. Hmm. ci biir famille parce que xale boobu il n'a pas demandé à te toll na foo xamante ne suba sa nawle la. Hmm. suural bu taxawee sa waajur sa ter am na wax yoo xamante mën nañ ko fi daal. donc loolu noonu nañu xoolee foofu bañ a jël lépp teg ko ci kawam naan am na loo xam ne lii la am na leneen la. Hmm. bu ñu njëkkee ci suñu bopp critiquer suñu bopp dinañ dimbali xale yi ñu bañ a lii. ba ñu bàyyi xel ni am na fi ay daara ay.

bu subaa ñu gisaat leen ci mbedd bi hmm. te euh, réglé wuñu problème bi ñu ñëppay taalibe am na si ñeneen ñoo xam ne yeneen lañu wala nga fay gis ay faits divers ci biir ay daara bu ñu wooyee daara la am hmm. donc nañu gën a bàyyi xel côté boobu kilifa di saytu bërëb yooyu laataan ñuy kii xale am na ñu nekk situation